xol bu sedd ci tawféexu toog ak yow euh, ñoo ngi lay jaare bu baax. waaw jërëjëf ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant bu baax di am mbégte lool ci ñëw gi nga xam ne ñëw ngeen fii di am mbégte ci seen taxawaay bi nga xam ne am ngeen ko ci wàccaayu màggal gi di ci daanaka saxaru safar bi mu teroo ba léegi waaw kon ñu ngi nuyu nag mbooleem ñi nga xam ne ñoo fi teew fekk ngeen fi waa Sénégal ak site yi nga xam te ne fekk ngeen fi ñoom ñëpp di nuyu bu baax nag waa 7TV nag du nuyu seen directrice muy soxna May Mouna sama Maria siste ak mboolem ñi nga xam ñu ne ci ci télé bi ak rajo bi. Euh, mbégte la ñu fekk si la ci yor-yoru màggal gi laataa ñu dugg sax ci waxtaanu màggal gi dañuy njëkkee ci um, suñu mbokk yi doon euh, yëkkati ay kàddu léegi léegi muy waa kër Cheikh Sidi Hadj Malick euh, ñu ñëw jàng way itam durus ci xasida Serigne Touba yi sa relation ak waa kër Sidi Hadj Malick ba tax màggal Touba jot ñu déplacé wu ñëw fekk si la ci sa Ah, waaw loolu suñu mbégte la ndax euh, moom sëñ Touba ak alxaaji Maalik si radiyallaahu anhu ku ne xam ne boolewuñ seen bopp yàllaa leen boole ndax ñoom bokk seen ak bokk njëkk tarixe yi di taxaw kon nag ñoom seen bokk ñoo ko bokk ba moo tax waa kër Seydi Alxaaji Maalik bu gisee ci kër sëñ Touba kenn du leen laaj lu ngeen fii def wala lu ngeen fii wut waa kër sëñ Touba bu ngeen leen gisee Tiwaawan kër Cheikh Alxaaji Seydi Alxaaji Maalik si doo leen wax lu ngeen fii def ak lu ngeen fii wut kon nag xëy na looloo tax ñoom ngeen ñëw fekk leen fii ñoom it ñuy ñoo xam ne at mu jot dañ ñëw bu ñëwee fii dañ fi ñëw jàng fi yëkkati fii xasida yi muy muy lu ñu neex lool ñu békke lool nit moom da ngay am kilifa sëñ sëñ Mbay Jaxate dafa ne am kilifaay li am solo soo ko amee am nga solo soo ko amul amoo solo ku wérul yomb ba wax bari nit boo amee kilifa da am looy looy rus da am looy jomb boo amee kilifa da nga am wéeruwaay bu dëgër waaye ñàkk ko nag moom ni ko sëñ Tuubaa waxee rek li ana man xadima sayxan mursida fa sayxoo saytaanu ay su xasida képp koo xam ne moo kilifa rek na xam ne seytaane mooy sa kilifa seytaanee nag ku muy sa kilifa fa lay yóbbu fu la naqari rek lay doon fa lay yóbbu foo rëccu rek lay doon kon nag gone yi nañu fas yéene am kilifa waaye nag masuuliya mooy responsabilité damay wax ne lu ci ëpp waajur yi la ndax dama koy tàmbalee comme man Jili Mbàkke ma xam ne man sama njaboot fas naa leen a yar teg leen ci njàngal leen jox leen ay valeur yoo xam ne xam naa ne ruus nañ ñu dégg leen ci lenn li rus nañ gis leen ci lenn nit ku nekk it noonu nga war a def ak sa digganteeg sa njaboot ba kenn nga teg leen foo xamante ni bii duñ fa teggeeku la léegi nag bu fekkente ni bi nag nit ñi léegi da ngay jur sa doom rek bàyyi ko ci na ko neex moo tax waxtu nekk nga cee am loolu naqari te sañ Tuubaa dafa waxoon ne na ngeen na ngeen na ngeen na ngeen fas yéene am ab yar ak i teggin na ngeen fas yéene wut ab yar am ab yar ak i teggin daaneel képp koo xamante ne bi yaruwoo rek. adduna mën a laa yar nee na adduna bu la munta yarit bàmmeel dana la yar te nee na bàmmeel comme yar da nga yaru te li nga ci wax dëgg la mooy yar ñàkk yar bi ak ñàkk teggi ni moom ku ne xam na léegi dafa lawa law waaye boo xool képp koo xool rek ci fondement ba te kilifa yi responsabilité kilifa yi la ndax am na nit ni muy amee kilifaam am nit ku mën a doon rek ñi nga fi gis ñëpp kenn ku ci nekk jàpp naa ne rawatina man ñi nga xamante ni man sama masuuliya sama responsabilité sama njaboot fas naa ba kenn koo xamante ni bii bokk nga ci sama njaboot wala bokk nga ci nga xam ne maay seen jëwriñ ci sëñ Tuubaa da nga def lu ñu lay xeeba wala da nga ko wax du am wala da nga wax wax ju ñàkki teggin wala da nga koy jëf du am léegi nag man ni ma sàmmanteeg ba fexe li ma yàlla booleel ma fexe leen ba teg leen ci yoon kilifa gu ne noonu rek la war a def waaye léegi nag bu ñu leen bàyyi ne ku nekk di doxee na ko neex ak di ko sax mooy waral eh, ñàkki teggin yi di am ñàkk xorma ji am jëf yi di am waaye nag ku nekk gis na fa muy mujj ci ñoom mm-hmm. ak rëccu ak ay waajur yi aw naqar te fekk na nag loolu ñoom ñoo ñoo ko ñoo ko teg seen seen seen seen seen seen seen bopp loolu loolu jërëjëf Mbacke lu am na solo du ñàkk itam ñu waxtaan ak yow ci jëmm ju tedd googu nga xamante ne moom moo di sa wayjur di Serigne jiiri waxtaan ak yow itam ci jëmm jooj di Serigne Fallou tey bisu màggal la euh, ñàkkul ni am nay kàddu fàttali yoo xam ne ñàkkul ne mën nga ñu ko fàttali ci jëmm ju tedd waaw ku sëñ Fallou sëñ fallu moom mooy mooy bis bi moom xam nga moom nday ndil gi mooy bis bu sëñ Touba Xaadimal Moxtaar waaye nag damay wax ne bis bi sañ tuubaa moo ko digle ne nañ ma ci sant la sama borom bi wax ne kenn ku ku ci nekk képp koo xam ne sama mbégte sa mbég la rek bis bi bu ñëwee nag ma ci santal sama boobu wane ko mooy ni ngee ñëw fekk ñu koy def muy dajale nit ñu ñëw ñu di leen berndeel ci niñ ko niñ ko bëggee te dama leen wax man leen ak berne rek fekk nuru luy jëf joo xam day nuru yàq rek berne gi des na kon nag loolu moo moom ngeen fekk ñu nekk ca te loolu it sëñ Touba loolu la ñu digal te sëñ bi lu ñu digal rek moom dañ koy def ci ni ñu yaakaar ne noonu la ko bëggee waaye nag ñun waa Kër Sëñ Fall ñu am ci benn par particularité li arab di wax al xusuusiyee ak jagleel ñu am ko ci mooy sëñ Touba moo digle màggal gi waaye bu ñu nee màggal Touba sëñ Fallu la ndax sëñ Fallou moo woote màggal gi ne ñëw leen fii fi tubaa ñu fi ñu fiy màggale sëñ tubaa ndax sëñ Touba bi mu fii ne njaareem la ko doon màggale ak taalibe yi kenn ku ci nekk fa nga ne nga di ko def waaye sëñ Fallou moom ak ni nga xam ne noonu la xamee woon sëñ tubaa di ko jaar foo xam ne kenn du ko fa jaar looloo waral mu xam ne sëñ tubaa moom nii maanaam mën a mën a li naan mën a mën a moom du ko wax waaye moom la moom rek lay wax moom nag sëñ Fallou moom moo xam daa xam sëñ Touba mm. ba tax na toujours moom da da koy da koy yaatal te waxtu nekk nu muy fexee taalibe yi jariñ ci rek da koy def moo waral mu ne ñëw leen fii ci tubaa ci wetu sañ Touba gi ñu ko fiy màggal màggal Touba loola waral muy màggal Touba waaw loolu la sëñ Fall def ci yoon wi. est-ce que du ñëwaat tuuti ci historique Ndindi comme euh, man barki démb waxtaan nañ ci mu am solo lool Sénégal 7 7 TV du moins ñu may leen ci. waaw nga baaxee leen histoire Ndindi. waaw histoire Ndindi moom maanaam Ndindi sëñ Fall mi ngi ko sànc ci 1913. Euh, sëñ fallu damay wax naan toujours euh, daf day anticiper toujours ci bëgg-bëggu sëñ Touba. Mm. day mel ne lu sëñ bi bëgg bala ko sëñ bi wax day fekk bëgg def na ko yëg na ko ba def ko ndax euh, sëñ tubaa dafa mas a woo Cheikh Mouhamadoul Moustapha ak Cheikh Mouhamadoul Fadl fekk lu jiitu loolu sëñ Fallou ñëw na fii ba sëñ ci dëkk bi dëkk bi ay sunu mbokki pël yi ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo moomoon fii yëpp sëñ Fallou bi mu ñëwee fii ni leen damaa bëgg am suuf su may bayee ñoom ñu nungul ko lool ndax Cheikh Modou Fall dafa mënoon a maslaa te fu masaa dem rek dañ koy yaatal ñu daan ne ko nag ñun fii nga ñu fekk nii euh, dañ fiy sàmm waaye nag am na joor goo xam ne yaatu na ma nga fee ca penku dëkk mooy fi jàkk ji nekk nii tey dañ la fa jox loo fa soob loo fa soob ko joxee sëñ bi sëñ Fallou sëñ ko defe naa ne lu mat ñaari ba ñetti at sëñ Tuubaa door leen a woolu moom moo ko Cheikh Modou Moustapha da daa dina leen dama bëgg Cheikh Modou Moustapha yaag Mouhamadul Fadal damaa bëgg yéen ñaan yi kenn ku ci nekk na jël na na dànd Touba juróomi kilomètre mu sañ fab dëkk bi mu ko waxee loolu sëñ sëñ Cheikh Ahmadou Moustapha daan ne sëñ daan daan sëñ bi ah sëñ Fallou di am na taw feex sëñ ne ko lu doon mu ne ah, moom da daa ne loolu nga doon wax moom moom njëkk nga koy nga ñu koy sant moom def na ko ba noppi ndax dànde na Touba juróomi kilomètre ba sañ fab dëkk sëñ sëñ sëñ bi da sëñ sëñ bi mag bi daan ne ko daan sëñ Fallou foofu lu mu tudd mu ne ko ndindi sëñ Fallou nee na dëkk bi bëggoon na ko bëggoon ko wutal aw tur waaye ndindi jooju nga xam ne moom la sëñ Touba sanc sëñ Touba dégg ci noppam moo tax mu bàyyi ci tuur ndindi wi looloo waral sëñ Moudou Moussa waaye mooy it dem dànd Touba juróomi kilomètre muy dëkkam bi bu ñuy wax tundoo di sanc fa sëñ Fallou sanc fii ci ndindi gi loolu moom mooy histoire ndindi sëñ waaw waaw di leen nuyu nag di leen sant bu baax di nuyu na bu nga xam ne sama njaboot nag daanaka mooy dalal journaliste ci kër gi la di leen nuyu nag kenn mais nga xamante ni moom man ak moom depuis RCS sama xarit la bu yàgg-yàgg maa ngi leen nuyu mbooleem nag équipe bi ngeen àndal yëpp dem mbég lool ndax yëg gi ngeen yëg bég nañ ci ndax xam ndindi màggal gi yaatu na programme bi bëri na kër kër yi fa diine yaatu na waaye bu ngeen bàyyi yëpp ci surtout ci bis bu tedd bii ni mu xatee ngeen bàyyi yëpp ñëw fii fekk ñu fii di fi jël ay image loolu na ngeen xam ne yëg googu yëg nañ ko lool waaw suñu xol seet na ci baax maa ngi yàlla suñu borom seen lii nga xam ne yéen ak yàlla na leen ci yàlla suñu defal barkeel maa ngi leen sant nag bu baax di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf Mbacke lay sa buri Serigne Mbacke ak maaram li may wax rek la ca maam sétoo koy jël waaye doomay doon bàyyi eh, Serigne Fallooy suma maam doy na tiitër ahmadou bamba xaalimul xadim mbégum jàmm ñi mooy suma maam doy na tiitër ñun mbégte la ci ñun tawféex la ci ñun ñu fekk si la ci kër gi eh, di gën a sàkk ñaan eh, dellu di feddali suñu kóllëre ak suñu taalibe eh, nga ñaanal ñu ñu fekk la fi ay at yu bari nga sut sa baay fan sut sa maam ay fan yàgg toogaay bi mu woyof lool ci yow Mbàkke Balaay sax ak baay abdul karim yaay borom makaarimal axlaaq yaay borom yërmande baay abdul soo gërëm na la bay karim fallo allah ji baara gërëm na la bay karim fallo suñ sidil muxtar gërëm na la bay karim fallo bay abdul karim yaay borom makarim yaay borom yërmande bay abdul karim cheikh abdul karim abo yal na nu yokk wakiilu noo ngi liggéeyal xaadim rasool fii ci Sénégal ndax ñoom wusool Cheikh Abdou Karim Mbacke Fall mi may bëgg a way barki démb nga dajale ay junni junni puus puus bàyyi ko sa gi dem ci Serigne Mountakha Xaadimul Xadim mu ñaanal jox la ndigal nga jébbal ko état Sénégal Karim Mbacke Fall yow yaa bëgg Sénégal Cheikh Abdoul Karim mi may bëgg a way moo fonk magam ñi bëgg si gi ci gis na naram ci suuf ne baay bi na xasaay bu laaj ngërëm Cheikh Abdoul Karim Mbacke Fall mi may bëgg a way sa mag ñi bu la joxee aw sas nga samp say xayma ànd ak murit yeeg ak baay faal yeeg ak jullit yeeg ak sa jeexul doo fa génn Cheikh Abdoul Karim Mbacke Fallou yaay fonk ndigal Cheikh Abdoul Karim Mbacke Fallou mi may bëgg a soo demee ga nga tijaan akub xaadr akub laayeen akub canaba canaba ñëpp nga fay fekk ji jikkoo mi rafet yaa su amee gan su ko teeroo ba teral ko gan bu demee day yàkkamtee del ngir jikkoo mi rafet ya fàttali li may bëgg a way bu jëfkat bi di jëf waxkat bi soñ di jotal man Alioune Badara maa koy jotal xasa karim ibnul karim fa ismaho abdul karim warata karamatil abdul karim an walideya an mabdun faadal cheikh abdul karim Mbàkke fàllilu réew maa ngi lay ñaanam fi sax te yàgg fee ba dégg maam Cheikh Abdou Karim Mbacke Fallou mi may bëgg a yaa ma na def ay teraanga te booy def ay ngay joxe doo ko xool Cheikh Abdou Karim Mbacke sa teraanga pinte banta nan ko ci dégg ci biir réew mi ak bitim réew ma nga naan Cheikh Abdou Karim Mbacke Fallou loola ma defal amoo xaaj amoo seet te doo parparloo doomu aadama moo la ñor sang nga yor sa wax am na maanaa téléspectateurs yi ñuy topp ci 7TV euh, amati nañu mbégte di leen gunge ci màggalug Serigne Bamba ji nga xamante ni fii la ñu yendu ak yéen ci Nindi euh, newoon foofee ca kër Cheikh Abdoul Karim Mbacké borom Makarim Alaxla ngeen gis la leen fa euh, digtal ñu xëy def petit déjeuner royal yendu ak moom ag ci suñu yaay yaay puy waxtaan ak moom jël la nga xamante ni itam moom moo di lafa fa jot a xew waaye nag ñu gis mu jël ay bernde indi ko fii nga xamante ni moom moo di ci kër Adja Fatou Kiné Gaye ak moom buñ ne Adja Fatou Kiné Gaye ne jàmbaar la jàmbaaru Serigne Touba la jàmbaaru Cheikh Abdoul la jàmbaaru Serigne Fallou la euh, moom la ñuy dékk suñu micro waxtaan ak moom ngir xam ana ban relation moo dox ci diggante moom ak Cheikh Abdoul Karim ak njabootam gi euh, mbégte rek la ñuy am di leen euh, digtal li nga xamante ni moom moo xew fii ci Touba Nindi yaay booy ñoo ngi am mbég di kontaan seet si la dékk la suñu micro ci 7TV. gannaaw bu ma sante yàlla jundi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may sant Serigne Touba di sant sama ñaari way jur di ñaanal Cheikh Abdoul Karim Mbacké mu yàgg fi te mu ànd ak wér di ko sant bu baax waa di kontaan ci yéen ñëw bi ngeen ñëw fii tey ci kër gi jërë ngeen jëf. Euh, balaa ñoo sori ci waxtaan wi dañuy waxtaan ak yow ci li nga xamante ni moom moo di màggalu Touba gi euh, màggal euh, ban tolluwaay la am ci Adja ki ne waa màggal moom. ku ne xam na ni mu toll ndax nee nañu bër bës borom lay toll lool waaw tax ku ne xam na Serigne Touba ku ne xam na bësu màggal bi li ko waral bës bi la Serigne Touba doon dem ci géej gi demam boobu ci géej gi dama damaa gis nit ku ne da booy fete da ngay fete sa retour ndax xamoo bi ngay dem xamoo di nga ñëw walla doo ñëw Serigne Touba nag ba ci bi muy dem la wax ne bu dellu seetee ñu santale ko yàlla jullile ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme demam xamoon na demam xamoon na ñëwam waa te ci demam bi ñëwam demam bi ci la àdduna baaxee ci la ñëpp rawe ndax ba mu ñëwee ak natt yu metti yeeg lépp ba ko yàlla ba mu ñëwee yàlla di ko fay da ko ne koo xam ne nii rek sama mbégte mbégteem la képp ku ne ashhadu an laa ilaha képp koo bind rek mu ne ko yërëmal waaw kon xam ne màggal dayoom kenn amul nu ni kenn xamul fu mu fu mu tàmbalee kenn xamul fu mu yegg ndax borom màggal gi noonu la mel muy Cheikhul Khadim waaw kon nag bu ñëwee ñun lépp lu ñu am rek ak lépp népp fu ñu mën a nekk rek dinañu dugg ci vol yi ñëw ñëw ci sunu wetu sëriñ Cheikh Abdul Karim Mbacke Falilu màggal ko ak moom wa ndax moom itam bés bi dong am nag ak Kazu Rajab waaw kon nag fu mu ci nekkee rek ñu nekk ceeg moom waaw kon mi ngi nonu dal dañuy wax ne yoon bi amul tànki ginnaaw tànki kanam la am bëggoon nañoo xam ana kañ la Adja Fatou Kiné tàmbale def li nga xamante ni moom moo di màggal ak gan yokkute la ci yëg gu tax saay su màggal gi ñëwee rek lu mu defoon daaw da daal di dugg. màggal nag yàgg naa ko def ndax man samay maam tëbuma tëb dugg ci Serigne tubaa samay maam dañ daan liggéeyal Serigne Touba sama yaay samay nopp bi mu tolloo diggante di ma ëmb ma di liggéey ci toolu Alaaji Fàllu Mbàkke ba bi ñu naan ay fan laay juddu. nga xam ne dañ ko doon wax naan déet sëñ Modou jeg mi nga xam ne moo yoroon toolu Alaaji Fàllu Mbàkke ba ci Casamance da ko ne liggéeyal bul si bul bul bàyyi liggéeyal judd rek barkeel waa kon xam naa ne nag Serigne Fallou Mbacke foofa la ma jëlee foofa la ma booleeg Cheikh Abdoul Karim Mbacke Falilou samay maam ci wàllu sama yaay ñoom itam daan liggéeyal sëñ Cheikh Mbacke sëñ Modou Moussa Mbacke ba sama maam Modou Lambane bi mu nelawee sëñ Cheikh Mbacke moo ko denc ci pax kon xam nga kon man liggéey màggal ak joxem addiya du bees ci man ma ñëw nag ndax man Serigne fàllu mooy sama lépp sama baay waa kër sëñ moo Modou Moustapha Mbacké la sama yaay waa kër sëñ Modou Moustapha Mbacké la ndax ay waajuram moom lañ man nag ma ñëw ne Alaaji Fallou Mbacké rek ma di ko wër ku ma gis duma la man ne salamtu nafsi waaye ma ne sama damay dem ca barab ba sama yaay ne ma loolu kenn du ko def ma ne ko ma jébbalu sëñ Fallou direct mu ne ma am na doomi Alaaji Fallou Mbacké ju nekk fii fiiñ mi kaay ma yóbbu la fa te Serigne Fallou waxoon na ne dem leen dëkk géej waaye danaa leen fa fekk si dëkk a yéen loolu war na mat quinze ans. waaw war na mat quinze ans wala 16 ans waaye ba ma demee muy Kazu Rajab sëñ Abdou Karim bi mu génnee li ma booleeg moom loolu la sama yaay yow daal mu toog diggante bii mu toog te Kazu Rajab la nit ñaa ngi fees dal mu mel ni dafa am espace boo xam ne daal sëñ Fallou moo ko def moo ko def may xool sëñ bi di ko xool di ko xool waaye man gisuma sëñ Abdou Karim bi sol maylus bi toog sëñ Fallou Mbacke mi sol marron eh, photom bu marron bi yor kaamir moom laa gis si chaise mu toog sama yaay ne ma ki ni mi ngi guddi nañ dem ma ne ko bala maa dem dinaa ko ne salam nafsi man loolu moo ma lu moo indi sama gébbalu ci sëriñ Abdou Karim ndax daf maa leer na man mooy Cheikh Mouhamad Fadal ñu di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér. waaw eh, nga sukk jébbalu ci moom booboog léegi def na fukki at ak juróom waaye ku xam Serigne Abdou Karim ëttam xam ca soxna Faat ki ne eh, xëy na doo sax bëgg ñu di ko wax waaye ku nekk yëg na mbaa gis na addiya yi ngay yëkkati di ko teg ci loxoom muy ay koppar yu bari lool lool lool eh, sa ak moom gannaaw sëriñ ak taalibe ba nga xamante ni loo ko jox ci addiya xeb ko waa mbirum addiya nag sëriñ Touba moom loo ko jox danga koy fàtte fi mu nekk nii bàyyi naa màggal gi jeex na màggal ak déwén laay préparé fim mu ne màggal ak déwén fi mu ne moom laay wax waxatuma gi màggal Serigne Touba loo ci def da nga koy fàtte waa ndax man it man sëñ bi jox ma ko dara sëñ bi lu ma indi ci moom rek barkeem laa ko amee sama liggéeyu ndey sama barke bay kon nag joxuma ko dara moom moom moom moo ma moo ma boo ma defal ci barkeem ma indi ko rek def ci màggal gi man defaluma dara sëriñ bi sëriñ bi moo may defaral waaw sama liggéeyu ndey nag sama barke waaw ñoo gis ne moom itam am na yëg lool ci yow rawatina njabootam gi ba ci ay soxnaam euh, doom yi ñëpp sax ay xarit lañu rawatina jëmm ji nga xamante ni moom moo di ay puy sa relation ak ñoom parce que gis nañ bi mu defaree ay berneem ba noppi sax euh, def ne taalibe yi jël leen lii yóbbul soxna Fatou. waaw loolu moom loolu damay wax ne ñoom bëgg bëgg Seex Abdul moo tax ñu bëgg ma ndax xam nañ ne dama bëgg sëriñ bi dama koy yaakaar àdduna ak àllaaxira yemalewu ma ko ak dara. ñu bëgg sëriñ bi ndax bu ñu bëgg loon sëriñ bi duñ ma jàpp ma tàmbalee ko ci soxna maam Ami Mbàkke seen mag soxna Fat Bintu Puy soxna soxna Lika Mbeng soxna yi ak xale yi waa kër gi ñoom ñëpp macha allah jàpp ma ngir sëriñ bi euh, soxna Fat Bintu nag xam nga yàlla mooy boole même ci biiri xarit sax yàlla day boole lu ma yéenewul amul su ci kanamee tuuti su ma sumikoo dinaa sol piir xëy yoo xam ne bedd bu ne huit cent mille la jar moom moo ma ko solal ba démb mu dolliwaat ma benn bi ma dikkee sama yaay daf ma ne waa soxna Fatou Bintou Pouye lii lan la mane ne ko daf ma ne fëlal fëlaale ci bii ay pir xala may jox walis ba mu fees sama rakk jeeg sama yaay nag lu gën ci sama gaal rek moom ko lu ngeen gis ma sol ko ci lu baax moom moo ko jox bernde yi buy defar day xeeb démb damaa dem ne ko soxna si yónnee fa ne ko soxna si ndawal ñu def laa soxla kenn ki dem ci soxna euh, fa euh, soxna lii ka soxna defal ko ndaw xam nga soxna Fatou bintu nu def nag la ma boole ko ak saaku pombiteer ak saaku kii saaku saaku saaku soble yónnee ma ko géwél bi ma àndal mu dank cent mille jox ko kon man loolu man bëgg sëriñ bi daal laa gis ku bëgg sëñ Abdou Karim da ngay bëgg ay nitam man noonu laa ko gisee waaw ku bëgg sëñ Abdou da ngay bëgg ay nitam te daf maa bëgg man ba ma xam ko ndax xam nga ñàkkuma fayda nag su fekkonte ne tey gis naa neneen nu muy doxee ci man su ma ko tombee ci ëtt bi rek yaay puy mu ne ma puy ma jubal sëñ bi ndax man sëñ bi mooy sama yaakaari àdduna ak alaxira moom dafa doon koo xam ne nee nañu boo ko waxul tam di nga ak i ak baaxam ak fonk sëriñ bi ak bëggum ko bëgg fonk taalibe yi yaay ji mi ngi nii su ma fi nekkul da ko naan soxna Faat Bintu Puy mu ne vingt yëfi ndox palaat lu nekk sama yaay mooy ñëw sama ginnaaw la koy def kon kon xam nga ne kon su ma taxawee mu di ma teral sama bët yi taxul bu ma fi bu ma fi nekkul lay gën a teral sama yaay kon soxna Fatou Bintou Pouye est xaw ma nu ngeen koy waxee ci ci ci français mais dama koy làkk ci italien passion proprio manziale moom la soxna Fatou Bintou taxawaa moom la taxawee ci biir kër jërëjëf <laughs> eh, jërëjëf yaa boy eh, waaw <laughs> waaw jërëjëf macha allah bég nañu bég nañu lool perfetta proprio soxna Fatou Bintou Pouye cento per cento waaw macha allah euh, bëgg nañu lool ci taataan ay kàddoom kàddu la yu am solo te boo ko déggee xam ne kàddu dëgg la te itam euh, ci xol la xanaa ñu bàyyi ko yaakaaram Cheikh Mouhamadou faadal mi mu gëm bàyyi ko Cheikh Mouhamadou Bamba Khadim Rasoul mi waral mbég mi waral jàmm ji euh, mu yeggale ko ni aw yoon te lépp loo xam ne rek bëgg na ko suñu borom matale ko yaay booy kontaan nañ ci ni nga ñu dalale ndax cofooñu bi ñu ñëwee bëgg laa jël da nga da ngeen may may ma sangu nga sangu ba noppi daanaka def nañ fi xanaa ñett jàpp ñeenti waxtu mu solu defaru daan na su may janoog yéen dama leen jox cër boo xam ne faa mel ni ma war a mel nag joog a janoog yéen loolu mbég la ci ñun te wane nga ni am na cër boo ñu jox kon ni ngi lay ñaanal di la bàyyi nga tàggatoo ak jërëjëf waa yéen waa 7TV yéen macha allah ndax xale yaru ngeen ci soxna Fat Bintou Pouye laa ko déggee ndax bi ngeen ñëwee fekk ma pareegu ma mënoon ngeen na nañ leen dem feneen man duma dara mais da ngeen a toog xaar ma ba ma sol mbubb ngeen ñëw waaye nag li ko waral xam nga lu mu doon nee nañu lu ko euh, lu yëngu la ko yëngal moo ko ëpp doole da ngeen di jóge Cheikh kër Cheikh Abdoul Karim Mbacké Falilou borom ma Karimal Akhlaq mi nga xam ne ku jàq boo ko woowee mu taxaw sëñ Abdou Karim fa ma nekk ay kilomètres avion 6 heures de temps la koy daw sëñ Abdou fu ma jàqee bu ma ko ne yaa Cheikh Abdoul Karim Mbacké Falilou mu taxaw kon bu yónni woon pitaxam yooyu sax ci man bëgg tey ma génn. barki Sëriñ Tuubaa mbub mi gën a cher moom lay génn wax ak pitaxam yi rawatina nag ngeen jóge ci yaay puy mi nga xam ne moom euh, ci zaahir maa ko mag waaye euh, sama yaay la ndax sëñ Abdou Karim waaw kon nag nii dong laay mën a def yéen bu ngeen ma xoolee di ngeen xam ne sonn na mais nee nañu ko xamul nu mu lay def nang ko defa tax mais ni ma def defa rëy barki Sëriñ Tuubaa te man ku ma kàtta ma ngadd la barki sëñ Bamba jërëjëf Amadou kebe ci caméra bi maa ngi kontaan bu baax a baax ci janoog suñu yaay ji eh, nga xamante ni moom moo di soxna Fatou Kiné Gaye di taalibeb Cheikh Abdoul Karim di jàmbaar lool Gaye eh, di jàmbaar ci kër Cheikh Abdoul Karim macha allah en tout cas bég nañu téléspectateurs yi eh, loolu lañ leen doon digtal fii ci Ndindy ci fi nga xamante ni moom moo di kër soxna Fatou Kiné Gaye di Gaye autant pour moi Gaye bi fan la ma toppee yaay waaw <laughs> ah, kon Guèye. xam naa bis bi la rek noonu. di leen sant. di ziar it waa polygame yi. Eh, di ganu sëriñ bi. sëriñ bi teg leen foo xam ne man xam naa ci dara bi may wax yéegal leen ci kaw daf ma ne bul sol daal laaj leen bi may wàcc soluma daal ñu doon nag xale yu yaru te sëñ Abdou Karim mii ñu lonkol de dinañ moom mooy alaaji fallu Mbàkke barke baa nga ca làmmeñ ba fexe leen mu leen rek ca barki sëñ Bamba ñaari junni laa ko njëkk jox addiya sëriñ bi. addiya ji ko mujjee jox ñaata man def joxuma ko dara dama leen di wax rek ñaari junni. ba ma xamante ne moom man am na lu ma ci dégg mais. téléspectateur ba ma xamanteeg moom ñooñu xamuñ ci dara man ma dara sëñ bi. jërëjëf en tout cas kontaan nañ wax na lu am solo Serigne Fall la woon bu boobu bi weexee lu mu wax mu am moo doon bàyyam ci jal bi moo toog nindi fii nga xamante ni bàyyam moo ko sañ ca 1913 eh, nga xamante ni sëñ Abdul Karim mooy seriñ Fallu bu nee na am mu am bu nee du am dootul am ñuy wéyale màggal gi mbokki téléspectateurs yi topp leen ñu dara du leen rëcc kaarimal axlaa Batak may bëgg a bër ci démb nga dajale ay junni junni puus puus bàyyi ko sa kër gi dem ci sëriñ Muntaxa Xaadimul Xadim mu ñaanal jox la ndigal nga jébbal ko état Sénégal Cheikh Abdoul Karim Mbacké Fall yaa bëgg Sénégal Cheikh Abdoul Karim Mbacké Fall mi may bëgg a moo fonk magam ñi bëgg si bis dañuy topp ni ñu leen ko waxee màggal gi euh, mi ngi leen koy jox fii nga xamante ni moom moo di Ndindy kër Cheikh Abdoul Karim gis ngeen ni nga xamante ni noonu la ñu àndeek yéen ci suba ba léegi gannaaw ba ñu jógee ca xamante ni moom moo di taawam ba euh, di soxna may ñoo ngi fii ci kër yaay Mbàkke nga gis nag actuellement ñi ngi servir li nga xamante ni moom moo di añ yi kebe damaa bëgg nga dugg ko defee nga woon mbokki taalibe yi li nga xamante ni tey moom moo xew fii ci Ndindy kër Cheikh Abdoul Karim ñu nekk ci kër soxnaam su tedd si nga xamante ni moom moo di yaay Mbàkke yaa ngi gis actuellement noonu ñuy euh, waaw bool yi na bool yi yànj na tubarkàlla gars yi nekk ci organisation bi soxna si maa ngi lay nuyu sama bi kaay yaa booy euh, tegal palaat boobu ñëw rek jox ma ñaari baat rek ci organisation bi yaay ñëwal nii ma maa ngi lay ziar. kon maa ma Baye Fall boobu murit murit murit kaay nii tuuti rek mënul mënul ñàkk waaw faaw mu am kenn ku sànni ay baat ci ci ci wàllum organisation bi ak yooyu. boole tubaarkàlla macha allah Baye Sall Serigne Saliou ñëwul may ko mu jàll kon waaw Serigne Saliou ñëwel nii Serigne Saliou ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar bu baax waaw féete woo fii jàppale si liggéey bi. gis nga at ni mu koy organisé jamono bu nekk waxtu bu nekk mu fee màggal gi jour màggal et lendemain màggal nekk si yor ay teraangam bi nekk mu doon benn nit koo xam ni saa su nekk rek bi nekk rek waa nga fexe soo xoolee décoration bi ak plan bi ak melokaan bi xam ni wax dëgg yàlla yaay booy bi ngàcce ngaalam na fi yàgg loolu te wér euh, lan nga ñu mën a wax ci wàllum organisation bi parce ko gis xam ne organisation bu dëgër moo sa docteur si maire bi te daanaka ku màggal ay fan màggalaat màggalaat màggal moom ku ne xam ne saa su nekk su ñëwee rek dañ ko jékku yombul nag waaye nag am murit du su nekk rek ànd ñi mu ci àndal ñëpp ci ay doomam maam ñëw taxaw taxawaay bu am solo soxna Bira soxna Tade soxna Bira ñoom ñëpp nga xam ne ci ay jàmbaar lañ ñoo xam ne saa su nekk rek ñu ci kanamam yaay booy bi di ko taxaw nday joro càmmoñ wax dëgg yàlla boo xoolee rek xam ni waxtu wi añ naaj na lool sax waaye gis nga moo war a yàkkamti bi fëddi fëddi ñu def ndax taw bi moo xaw a ñu bàyyi la nga nekk ci liggéey bi taw bi dafa xaw a daf bokk ci li tardé liggéey bi waaye nag ak cant la te itam ak taw féex la ndax la lu toll ne bisu euh, Serigne tubaa yàlla ji di sotti ak ndox mën nañoo jàpp ne loolu xéewal la sama xarit bi kaay nii kaay kaay ñaari baat kaay yow looy daw yow <laughs> ñëwal wax ñaari baat loolu mën ta ñàkk maa ngi lay nuyu nii sa moom sama xarit la ndeysaan ci suba ba tey mi ngi ñuy toppatoo ndax añ ngeen ndax ndekki ngeen ndax naan ngeen mënul ñàkk nga sànn ci ñaari baat maa ngi a nuyu. asalaamaaleykum waa 7TV waaw 7TV maa leen bu baax di leen ziar te si màggal di leen delloo seen wàccuwaay te na ngi fii kër yaayu Karim yaay Mbàkke suñu yaay suñu xarit suñu naataango moom moo tax ñu teew fii suñu yaayu xol kon na teew fii wala may neex maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp waaw du ma euh, ko bàyyil ma bàyyi la nga jël bernde yi ni nga xamante ni noonu lañ koy euh, seddale fii ci kër Cheikh Abdoul Karim Mbàkke ñoo ngi ci biir kër soxnaam su tedd gi nga xamante ni moom moo di yaay Mbàkke Kébé gis nga Baay Faal yi bàyyeeguñ de tey dara manqué wu fii ginaar yeeg ah na yaa ngi ñëw ginaar yeeg ah gis naa fi sax ay pitax saa baay maa lay ziar def nañ ay picc de ay picc yu sew bu pare picc yi égaat lañ koy wax yu sew yi ba pare pitax yi nag gën a saf sap ba pare gars yi nañ koo roof raxas moom set noo waxuma sant bi non da sant bi kii kebe na am na ana ay kalam ñu koy summi ana ñu <laughs> non kenn ci naw koy woowee ani égar lañ koy woowee égar waaw yu sew lañ koy woowee ah, allah am na solo kebe yaa ngi gis gars yi actuellement euh, ful bi ni mu ni mu bare fii ki nga xamante ni moom moo di kër yaay Mbàkke euh, ñuy servi li nga xamante ni moom moo di añ yi yaay Mbàkke ngi noonu kebe sunu yaay ngoog jàmbaaru Cheikh Abdoul Karim ji jàmbaaru Serigne Fall ji li may wax naan waa kër Serigne Abdou Karim li ma gën a marqué ci ñoom bokk na taalibe gi waaw moom bu ko neexoon day toog taalibe yi defar lépp waaye moo ngi seen biir ànd ak ñoom organisation bi ànd ak ñoom li nga xamante ni moom moo di teraanga yi ak bernde yi ci suba ak léegi di dalal mbokk taalibe yi jaxasoog ñoom di saafonte ak ñoom di xool ndax lekk nañu ndax nan nañu moom toogul rek délégué mbir yi toog jàpp ñàmburam lépp moo koy defal boppam waaw lañ doon wax naan sëñ Fallou daa jaay njureel jënd taalibe njabootu Cheikh Abdoul Karim gi itam noonu la ñuy doxee wanewuñ ne ñii ay doom lañ mbaa ñu wane ne ay soxna lañ dañuy wane ne ñun ay taalu bi lañ kooku moom moo di Yaay Mbakke Yaay Fall maa ngi lay ziar. ah delloo laxasaay bi taaru na. waaw gis nga de bëgg taaral bés bi rek waaw màggal gi moom macha allah neex na torop yaay ngi nii ànd ak ñun def lépp macha allah dara manqué wu waaw màggal gi moom yàlla nañ koy màggal ay ati at incha allah ndax mi bari na waaye xéewal la <laughs> jaajëf waay xéewal la waaw. moom jëla ma jekki njaxas sa njaxas naay merci beaucoup waaw euh, bi ñu ngi koy wax Babacar ah waaw taxawaay ci kër gi euh, tey nag euh, comme seen taxawaay laa fi taxawee dama fi indi sama site muy Oxy7 TV fekk fi tamit scène bi nga xamante ni mooy Oxy7 n'est-ce pas ñu ñëwoon fii tey ci Baye Karim pour couvrir ko màggalam ay confrères ngeen da ngeen ñëw pour ko way way way noonu la noonu la waa Otes nangeen def hôtesse yi kan mooy wax ci yéen kenn ñemewul ci yen ah benn benn hôtesse bu ñemee wax kan kaay ñëwal nii yaay booy ñëwal ma dugg ci biir soxna yi parce que ñoom itam ay jàmbaar lañ ñoom waxuma la sax tey waaye daanaka bi màggal gi desee ay fan ba léegi ñu ngi fi di bernde gan yi di leen toppatoo te loolu dafa am solo ci màggal gi soxna si maa ngi lay bi. tur bi nan la. soxna Kodou Ngom. Euh, sa taxawaay ci kër bokk bokk si kuréelu yaay Ami Mbacke muy suñu yaay jaboote ñëpp macha allah ñu koy def chaque année année bu ñëw gën a neex ba sa weesu ñu koy sant bu baax ku tedd ki ñu màggal chaque année fii si loo xam ne moom la sëñ bi digle mbégte daal lañ ciy am ak yokkute. boo amee kàddu seede ci soxna si nga xamante ni moom moo di yaay Mbacke. yaay Mbacke moom wax dëgg ku baax la ku dal la. jaboote ñëpp macha allah doo xamee njabootu boppam ak njabootu ñeneen macha allah ndey ji seex la jaaxaanaa la tuddee damaa mënul wax nag waaye kon moo wax li gën a weesu lii koy sant bu baax a baax ci barke sëñ Fallou Mbacké. aja mi ngi noonu màggal gi mi ngi wéy di ala daw me fii ci Ndindy kër Cheikh Abdoul Karim ñu nekk tup yaay Mbacké euh, tubaarkàlla muy bernde gan yi yéen a ngi gis noonu ñuy séddale bool yi bool yi nag lu nee nga ci moom moom loo xalaat rek loo xamante ni la Cheikhul Khadim ne woon cant gi nañ ko tàmbalee ci ginaar ba ci gileem Euh, loo xalaat rek mi ngi ci ndab li xeetu ndawal lool dagan ci ab jullit rek euh, fi mu toll ni tubarkàlla mi ngi fii ci kër yaay Mbàkke nga gis noonu ñuy servir boole muy lu am solo muy lu am solo wax leen baykat yi baykat yi waaw waaw Fallilo Sénégal aja Kébé mi ngi noonu gis nga lu am solo li nga xamante ni loolu lañ jëlee tey file ci Ndindy kër Cheikh Abdoul Karim Mbacké dugg nañ ci këru njabootam gépp nag euh, ña nga tàmbalee ca taawam ba nga xamante ni moom mooy euh, bàyyi ma njëkk ci yaay Mbacké mi nga xamante ni moom mooy soxna Cheikh Abdoul Karim biñ génnee nga xamante ni euh, moom moo di kër yaay Pouy mi nga xamante ni man mooy suma xarit moom mooy taawul Cheikh Abdoul Karim moom laa bëggoon a wax sànq tur bi moom la ñu njëkkee jóge nañ fa dem kër seen jiiri Fata jóge fa dem seeti suñu jeneen yaay muy ki nga xamante ni mooy soxna Fat Kiné di jàmbaar Serigne Abdoul Karim loolu la ñu indi tey ci màggal 2023 fii ci nindi ñoo ngi ñaan ñu dund ko téeméeri at ay safar yu bari di bëggee di bëggee ba aljana avec la 7 TV dara du leen ci rëcc jaa ngeen jëf